bi euh, nga xam ne moom moo nar a xew ci réew mi. waaw euh, d'abord maa ngi baalu àq sénégalais yépp mm-hmm. leen bal ak di ñaan yàlla jàmm sax fi. Mm-hmm. le président Macky Sall dama yàgg ak moom. Mm-hmm. xam nga ko àndal bi ngeen nekkee xale fowandoo. daje à l'université de Dakar jàngandoo. donc am na nu muy waxee yow ni nga koy comprendre. ku ko miinul du ko comprendre noonu. man yaakaar naa ne discours bi nga xam ne jox na ko maire yi ak les élus. discours daje la ci suma xalaat ak ci ni ma xamee le président Macky Sall ni muy waxee. ndax daf leen wax lan da ngeen di booloo ngeen nekk benn yéen a fi nekk keneen nekk fi. Hmm. loolu mooy mu leen di ñaax ci ñu am force. d'unité boo xam ne mhm. même moom su fi jógee unité boobu su desee ci ñoom mun nañu am chance continuer mhm. waat euh, am ku ñu jiital ci ñoom loolu nag mhm. moo jafe xam nga soo xoolee analyse u deux dernières élections yi président gagné ko pratiquement dañuy wax rek c'est des bricolages fii euh, soo xoolee au niveau locales des locales les les grandes villes perte na ko mm-hmm. nga ñëw ci législative presque il était do à dos avec l'opposition mm-hmm. donc il a fait son propre bilan de son camp politique mm-hmm. te gisu fa benn satisfaction alors mënul ñàkk am satisfaction ci camp politique am boobu ba pare moom ci boppam bugg leen ñaaxaat ci beneen combat électoral donc man noonu laa ko jàpp il a fait son bilan xam na ne ñi mu jàkkaarloo woon joxuñu ko majorité mhm. absolue ci communal yi joxuñu ko majorité absolue ci législative yi donc il peut plus compter sur eux mhm. alors donc jàmm Sénégal mu tey jii mooy lan mooy que président de la République déclaré ne dematul aux élections mhm. du ko tey dese na ko huit mois yoo xam ne mun na réorganiser waat ses troupes mun na leen boolewaat ba ñu am consensus tam tànn kenn seen biir ce qui est très difficile aussi je le répète mm-hmm. mais man je pense que discours bi noonu laa ko gisee ke mm-hmm. le président va déclarer que du dem que euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo àndoon ak ñoom dina leen jàppale ñu defar seen camp ba mun a am majorité dem aux élections gagné ko. ba ñu mën a am candidat ba ñu mën a am candidat. loolu mm-hmm. nag waxtaan lay doon te c'est pas difficile. beneen aspect bi mooy aspect euh, opposition euh, su ma koy jël ci euh, euh, Ousmane Sonko laa koy jël Ousmane Sonko moom tamit mi ngi préparé boppam mi ngi préparer aussi ay troubam waaye ñaar ñooñu ñëpp mën na ñàkk c'est-à-dire Sénégal dañu war a xam ne ci histoire politique bu Sénégal ennemi d'hier yëpp toog nañu aujourd'hui di lekkandoo. Mm-hmm. et ça ne surprendra pas. Mm-hmm. un jour président de la république toog ak Ousmane Sonko surtout su déclaré ne du dem hmm. mu mun koo aussi ñu toog am ay waxtaan yoo xam ne mun nañ ko def ba hmm. Ousmane Sonko comme yeneen nawleem yi bokk ci élection 2024 hmm. mais loolu ay waxtaan la au préalable et moi je demande à toutes euh, les les deux parties pourquoi pas mënuñu jéem a daje suñ ko dul def ci suuf ba léegi je sais pas parce que moom politique li xew ci Ablaye Wade ak euh, euh, Idrissa sec mhm. tëj na ko fi combien combien de mhm. mois génne waat ko nekkati ci suuf ñu ngi doon ñu ngi doon waxtaan mhm. donc moi j'appelle les deux parties politique moo demee noonu nekk ñu ci beneen champ religieux wala champ sociétal ñu ngi nekk ci champ politique rien n'est impossible et on di jamais jamais on dit jamais jamais en politique donc li ma li may li may ñaan mooy ku ci nekk ci ñoom parti yooyu parce que position bi ku ci nekk. nekk na loo xam ne day déstabiliser Sénégal. te hmm. sénégal yi dañu sonn. waay sonn dañu tiit dañu jaaxle. tout à te ñaar ñooñu rek ñoom ñoo ko waral. Hmm. léegi pour pourquoi pas su président déclaré ne du dem ba noppi. Hmm. woo Ousmane Sonko. ñu toog ñu waxtaan woo opposition bi def beneen dialogue boo xam ne du dialogue bii nga xam ne ña demoon ñëpp ay opportunistes lañu c'est des gens qui ont trahi leur camp. tu as et je le nomme euh, Khalifa Sall il trahi tout le Yewwi dem ci opposition euh, dem ci dialogue boo xam ne li mu ci buggoon yëpp mooy lan mooy que moom xalifa Sall na bokk mais gor du waxee noonu tu soo bokkee ay nit ak lu mu munta metti lu mu metti metti metti danga ko war a assumer mhm. même su fekkee jaral na la avantage yi nga ko waroon am mhm. doo ko am mhm. donc je reviens une fois à dire que ñaari parti ñoo am te ñaari parti yooyu yëpp tey jii xool nañu ne suñu toogee waxtaan dinañ dalal xelu Sénégalais yi. benn bi mooy président Macky Sall na génn wax dematul ba pare bàyyi champ champ électoral bi képp koo xam ne sénégalais nga te mun ko nga mun a dem au présidentiel de 2024